màggalu Touba 2023 dëkk bi tooy na lool àndandoog li nga xam ne moo di ay taataa ndox ci gox-goxaan yi fii ci Touba taw bi nga xam ne taw na ko fii ci Touba taw bi def na loraange ci yenn ay gox ba ci ñenn ñi sax ñu waroon a dal si jotuñoo yegg wala ñu changé dal ci fuñ daan jëm bu ñu jógee ci taataa ndox yooyu ñu ñëw ci wàllu transport bi moom itam muy dem beeg dikk bi boo xoolee xat na lool nit ñi ñu ngi jël lu nekk ngir yegg fa ñuy dal lu ci mel ni sareetu mbaam nga xam ne lu ñu fonk la ci màggalu Tuubaa gi lu ci mel ni sareetu fas waaye tamit lu ci mel ni minicar ba ci tata yi fépp foo xool rek mu ngi fees dell ba nit ñi di buuxante ngir mën a yegg seen daluwaay mu mel ni rek màggal gi at bu jot yokkute rek lañu ciy gis saa bu jotee rek nga gis li nga xam ne mooy lu lay yéem ñenn ñi sax dañuy préféré ñoom di dox ngir gën a actif di dugg ci koñ-koñaat yi di nemmeeku dëkku bu sell bi di Touba Mbacké di xaar bés bi jot ngir ñu mën a dem ziyaare jumaa ju sell ji